alaaji alaaji <laughs> te su tay bii damaa bëgg nga déglu ko ak qualité bañ koo dégloo xol waaw te tam bu fi def affaire u parparloo te tam bu fi def ay affaire ay affaire u du ah, attaqué alaaji damay dànkaafu eh, ni askan woo xam ne yoonam nekkuñ ca alaaji damay dànkaafu ni ah non dama lay dànkaa ah man du ma ci wax sax dama lay dànk ah kay <laughs> alhamdulilahi rabbil alamin ah, tey moom boo ci waxulee wallaay alaaji ma kontaan du ma ci wax sax kon gedd na léegi uh-huh. yaa ci war a wax sax ndaw si benn sëriñ nee na moo ko arnaqué sëriñ tariyaax nee na sëriñ bi dana ko man maa ñaanal mbër diw. nekk rakku diw mbër mu siiw. rakam. maa koy ñaanal. mbër mi sëriñ bi nee na moom mooy ñaanal mbër mi. mbër waaw. wan ko photo yi taxawak mbër mi. Euh, euh, euh, waaw def indi ay preuve yu bari yu wane ne moom moom mooy. ñaanal mbër ma mooy ñaanal diw. fa ndaw si mujjee nag ak sëñ ba léegi ndaw si moom lu mu bëggoon sëñ bi ñaanal ko tax sëñ bi di ko jox yëpp ay di ko ñaanal ay ay ay saafara di ko di ko di ko jox mu ñaanal ko dégg nga loolu alaaj waaw waaye foo mu mujjee ndaw sax te sëñ bi nee na ma mhm. nga dëkk booru Rovin <laughs> barki yonent bi suñ bañ <laughs> ci dëkkuwaay bala yow xaw ma foo ne waaye doo réer. ah du réer vidéo baa ngi fi moom ba nga ñëwee ba suñu ko waay ba soo ñibbi kay foog nga yóbbaale vidéo ba nga xale bi dem na ba booru rafet. Mm-hmm. dem na ba fekk ko fam ne ne ko mais yow fii nga nekk nii moom lii auberge la wala kër la. Mm-hmm. ndaw sa normalement foofu la ko waroon a laal laalee tànki daw. Mm-hmm. ba mu ne ko alaaji fii auberge la wala du auberge. waaw wax dëgg yàlla. dégg loolu waaw <laughs> ñu jógee ci loolu mhm. ndaw si nee na daal sëriñ bi daal dëbbal dëbbal naa dëbbal a dëbbal arnaqué ko ngeen mhm. baal ma ba tëddee ko mhm. déglu de benn yoon benn yoon ñu doxalaat doxalaat ba moom bàyyi bu deuxième partie nga nga yegg ca <laughs> dellu na fa dellu fa moom da ko tëddewaat ba <laughs> ndaw si ëmb na ak ëmbul yooyu yëpp Mantoulaye nee nañ bàyyi ba deuxième partie <laughs> ah ah ne ëmb na ak ëmbul de. ci sëñ bi nag de. ah te mbaaxam ma romb na de. ci ndaw sa mbaaxam ma romb na. ngeen tey ci nee la cinq la mbaax ma waroon a ci sëñ bi de. Hmm. Hmm. tey leen ci sëñ bi de. Hmm. Ah, kii Senda. jox ndaw si. Ah, man de jaaxle rek moom ma fi indi euh, benn maara nekk euh, géejawaay daf ma woo avant tout d'abord balaa mu may woo si TikTok bi la ma def sali ça ma yëkkati ko loxo léegi bu ma ko yëkkatee loxo mu bindaat ma soxna si ça va s'il sa numéro laa soxla man tamit nag tontuwuma ko ci laa ko envoyé sama numéro léegi bu ma ko envoyé sama numéro mu daal di ma woo bu ma woowee ci la ma wax ne soxna si naa def mën na ko ne maa ngi fii mën na ko ne yow la kaw kan mu ma ne man la diw mën na ko ne luy sa problème mun ma ne waa man dama laa gis ci ci bi gis ne daal yow dangaa amee ay rab cat dala topp affaire yooyu amoon nga jëkkër nga divorce wax am nga ay doom mën na ko ne bien sûr dama doon sëy waaye suma sëy dafa tas te am naa ay njaboot macha allah te affaire rab bi dag yàgg na ci man parce que faj naa ko ba sonn mu mane ne léegi man boo gisee moom la ne nag ma envoyé sa numéro bëgg laa jàppale te yàlla tax man na ko ne ah mu ne waaw man na ko ne yow foo nekk mu ne ma ne Ravin naa nekk géejawaay man na ko ne ah mu ma ne waaw bu ma waxee loolu man na ko ne léegi nag luy problème bi mu ne léegi man dama laa bëgg te yaa kii bëgg laa jàppale jàppale te yàlla tax léegi da ngay fexe ma jox nga ñëw ma jox la sangat génn la ci rab bi affaire yooyu parce que rab bi bu la dëkkalee dalay sonal man na ko ne d'accord moom bu ma dëkkalee damay sonal parce que mën naa toog bu ma daanalee man naa toog trois jours damay tëju ci néeg duma ma génn du lekk affaire tout yàqal na ma lu bari léegi nag bu ma waxee lu ñu wax téléphone wax nañ lu yàgg man ak moom mu ma ne léegi balaa ngay léegi bay ñëw bala ma lay ñaanal dangay ute xar benn melo ma ne ko ne ah ma ko ne waaw ma expliqué ko ma na ko ne man sama liggéey bi fa lay dimbaleek sama njaboot sama waajur yi dafa la lu fay ay luwaas ma ne ko léegi xar bi ñaata la mu ne moom jaayul xar bi waaye man lu ma am rek su ma ko joxee dina ma dimbale te bu ma indee xar bi dina ma ci dimbale génneel ma rab bi te dinaa ci amel dinaa ci am alal parce que dina ma ci euh, euh, ñaanal dugal ma xaluwa trois jours la liggéey bi di diire man ne ko ne ah man ne ko ne d'accord ma ne ko ne léegi man instant bi yoruma xaalis parce que lu ma yor moom laa nara a sama luwaas préparé ko tabaski mu ne loolu du problème man boo ma joxee bu ma yónnee xaalis bi tey lundi trois jours lay am rek nga jot saa mu ne affaire fay luwaas bi wala affaire yu tabaski bi loolu bu mu la jaaxal ma ne ko ne ah sëñ bi loolu nga wax moom doy na waar di mu waat wax nañ du yàgg ba ma ne ko léegi man dinaa la envoyé vingt mille mu ma ne instant bi ma koy waa man du ma jaaxal kilo yàpp quatre mille lay jar est-ce que heure bii xar dina cher mu ma ne léegi dangay feex ñu wax daal ba léegi yow léegi dangay jël sa xaalis bi nga jënd boo jëndee boo génnee bu fekkente ne xaalis bi jot naa ko man après léegi man dinaa la rembourser sama xaalis mu ma ne soxna si mun mu ma laa ñaanal jël sama xaalis la ma gisee mënoon na la ci laaj ay millions parce que affaire bi kii bi yow yaa koy njëriñoo waaye mënu ma jël sama xaalis bi la ñaanal te fay kii fayeku ma la si benn euh, dërëm mën na la mën naa la ci fayeku ay millions. bu mu waxee loolu man na ko ne ah léegi d'accord man na ko ne léegi mu ngay fexe nga yónnee ma man ko léegi dinaa la yónnee vingt mille ma daal di wax loolu ma toog calculer calculer mu ne loolu man ta ne koo xamante ne mosoo koo gis mënoo fexe rek yónnee ko sa xaalis te moo fu mu nekk. mu woo mu toog ba ngoon ay côté six heures mu woo mu ne soxna si dégguma la de ma ne ko ne waa léegi xaaral may ma damay liggéey pareegu ma wàccagu ma moo tax mun mun ma ne ah mu ne waa kon maa lay déglu ba ngoon mu woowaan ma mu ma léegi bu fekkente ne woolu maa jox sa xaalis dangay ñëw nga gis ma ma gis la ma ne ko ne d'accord mu wax ma ne rafet la nekk ma dem rafet côté boobu la dëkk wala. ci réveil foofu noonu ci biir réveil. foofu la ma jox rendez foofu la ma jox rendez-vous. foofu du ay du du kër de. musuma xam sax fuy réveil keroog mooy première fois ma dem foofu léegi bu ma demee foofu ma fekk genre comme auberge daal. auberge dafa am. comprendre nga léegi man xaw ma bu ma duggee maa ko sëñ bi fii nga nekk mu ne waaw ma waaye fii man dafa ma xaw a nduróo comme auberge. mu ne ma mu ne ma ne côté bii moo nekk auberge côté bii ne ay kër la ku ñëw ko xamante ne amoo fii ay néeg fii ngay luy ma ne ko ne ah ma ne ko ne ah man de fii ma mel ni comme ça auberge la mu ma ne non non soo nekk si soxla moo la fi indi boo koy faj nga ñëw def li ngay def ba pare nga dem. ma ne ko d'accord léegi ma ànd ak moom ba ci néeg bi bu ma demee ci néeg bi ma gis ko néeg bi lal kese moo fa nekk chaise amul fa dara amul fa fekk fa benn valise mi bu ndaw ak téere yu bari sax téer ay ndomb nii yu ñuy takk mu toog ma wax ak moom expliqué ma ne ko kon yow laa doon waxtaanal mu ma ne waaw léegi nag mu ma ne léegi lu ma la wax léegi danga koy def ma ne ko ne d'accord boobu sama compte bi cent mille francs moo nekk sama compte bi parce que lu ma am su ma yónnee samay waajur yu des yi dama koy def sama compte bi comprendre nga léegi bu ma ko defee léegi nag mënu ma ne léegi xaaral man ma woo borom xar bi kuy jaay am naa kuy jaay xar kooku moo may jaay sax su ma amee client liggéey yu may def moom moo may jaay xar mu daal di composé numéro woote waaye deful ko nag ëpparle wax wax mu ne ko ne léegi suba suba danga may indi la xaar kooku mu ne ko mu ne ko ne ñaatal mu ne instant bi xaar moom cent cinquante ay deux cent nangam sangam. mu ma ne ah kii de moom ku ma koy indi kooku amul xaalis boobu noonu ay cent cinquante deux cent affaire yooyu mu wax ma ne ko man nag man lu ma yor nii moom lay fayee sama néeg te moom laa bëgg préparer tabaski bi. comprendre nga su ma la ko joxee mu ne noonu soxna si affaire yooyu noonu loolu ci am trois jours rek laa liggéey bi laa la koy defar ma ko d'accord. léegi nag bu ma waxee ne dinaa la faj ci rab bi. jox nga ko cent mille. jox naa ko xaalis bi. ñaata nga ko jox. cent mille laa ko jox. laa ko jox loxo ak loxo. d'accord kon nga bu ma ko joxee cent mille bi mu am lum benn kaas bu mu génnee ci saagam boobu jox ma dara mu ma ne naana lii pour affaire rab la affaire alxuraan la comprendre nga léegi bu ma joxee loolu man tamit ma naan. bu ma naanee affaire bi ci laa tàggaloog sama sago. maanaam nga fa dugg. maa fa côté maa fa dugg ay côté dix neuf heures et demi daal. fa fanaan ba bërset. bu ma naanee affaire bi. bu ma bi fa fanaan ba bërset fa ay huit heures neuf heures laa fa jóge ma war a dem liggéey mu maa dem liggéey def boobu noonu daal ma sentir sama yaram bi am na lu du ma ci mun a def dara bu may dox nii. daf laa tëddee. waaw bu ma yeewoo fekk bu ma doon dem maa ngi sol du mat. soluma ma sa woon tubéy yero olof bu mat laa sol parce que man damay muuru ma dem léegi bu ma yeewoo nu ma sama ndey juree noonu laa fekkee sama bopp ma ne waaw fekk moom mu jóg na anam moom. moom mu ngi foofu fekk moom mu ngi jóg na ba sangu ba toog. léegi mu doon pare par mi ni man nit moo ma yee ma tiit ci nelaw. bi nga jógee gis sa bopp nga def yaramu neen automatiquement nga fekk ko mu toog sa réaction lan la loo wax. man dama ko wax ne ko ne waaye yow diw man kon fii laa fanaan mu ree man ne ko ne waaye léegi man lu ma semi mu ne waa man lu ma la war a ñaanal lii da cee bokk. seede yàlla comprendre nga léegi bu ma waxee lii da cee bokk mu ne ko ne ah faj rab bi ngay sima doomu adama ca ak moom mu ma ne soxna si man lu ma lay liggéey dama kaa xam. parce que dala wax ne pour mu génne rab yi il mu tëdd ak yow. waxuma ko woon ma ko woon aadi bi man du ma fa toog sax di ko xaar. bi mu tëddee yow pare la. ci la doog a wax loolu. comprendre nga bu ma waxee loolu mu ma ne avant loolu fekk man bu ma doon dem foofu envoyé na ma benn fëtë mbër mbër bi géejewaay la dëkk. mbër bu siiw la magam ku siiw la te rakkam moo doon bëre jour samedi nee na moom moo ñaanal kooku kooku ma kooku def nañ vidéo envoyé na ma vidéo boobu. envoyé na la vidéo bi envoyé na la ay photo am photom envoyé ma vidéo mbër bi moom ak moom fu mu doon wax ak mbër bi. mooy bi ma bi ma noonu. bu ma la envoyé noonu ak photo mbër bi. Mhm. mu envoyé ma ay message comme ça comme ñaanal du ko ñaa ñu ko ñu mu doon ñaanal parce que man message bi ak dañoo bëri si mu jóg maa liir lépp. d'accord. d' accord moom daal wan na la carrément ne maanaam euh, mbër boobu noonu. nekk géejawaay moom lay ñaanal yow loolu moo tax nga am ci moom confiance. confiance bi mu mën a benn ak benn woykat. ba pare nu mu ma waatalee si Serigne Touba dëkk. parce que këram Touba la nekk. loolu la wax nee na Touba la dëkk. dafa am cër ci xalifa bi. man nag te mbër bi. magam du yaafus. musuma koo gis. tale rek ak yu muy def mu sëkkal na ko ci rakkam kooku man ci laa xam ne ne kii nitu dëggu la parce que ku dem di ma woon ay preuve yooyu noonu bu dee yow sa sëñ bi di nga ko gëm man nag si laa am yaakaar ci moom waaye nag bu ma demee ba foofu si la ma def affaire yi ñaaf tëf yu bon yi. d'accord ginnaaw bi nga xamee ne ne fekk nga ko foofu noonu ca euh, bërëb boobu noonu. bon mu seq yow ba pare. Mhm. après loolu. fan la affaire bi mujj. fan la mujj ma bu ma dama kaawoo de jóge naa foofu waaye man mënumaa comprendre sama bopp mu ma ne waaw rab bi la day génn léegi wax wax daal ma ne ah waaye lii de doon trois jours mënumaa dem liggéey mënumaa lekk mënumaa naan sama yaram da doon metti mënumaa def dara yëngatu mënumaa def dara lu ma tiyee mu wadd danga mel ne ku nekkoon lëndëm ni waa nekkuma daal sama bët yi di lëndëm mënumaa def dara ah, soxna si yow mbaa ëmb xaw ma yàlla rek a xam soo sëñ bi lu ma la mante wax fii damay fen ci affaire am affaire yooyu sama yaram bi ci biir mel nii am na luy dox foofu noonu may sentir sama yaram bi lu metti lu metti loo xamante ne dama koy woo du ma jël dama mujjee dem ci benn avant may ñëw fii am na benn journaliste bu siw bu ma dem ni ma ne fokk nga ñëw ñu waxtaan léegi temps yow dama ko doon woo du ma jël léegi bu ma demee si journaliste boobu journaliste boobu woo ko c'est que waa ji moo mën a wax boo xamante ne di waar ci ay Serigne Saliou ak Serigne Touba yu kenn xamul kooku mun na ko gis nga kii du loo ko def nii metti na waaye bi nga ko doon sëkk ak moom moom séntu woon lii séntu woon lii ci ci yow kon dafa war a rafet mu ne man kii lekk lu ma ko dërëm nangam sàngam bu mu génnee xal nee na bu mu génnee xaluwa mu woo ma téléphone mu ne nag may envoyé 4000 am na benn sarab bu ndaw bu may def nga ñëw jël si sa garabu euh, téere bi nga war a tap takk muy téere xaw ma xaw ma bul xaw ma nakk ndaal xaw ma nu mu ko waxatee téere bi nu mu tudd mu naan ku la liggéey du la jàpp rab bi dina la nangam sàngam dina la di nga tàggoo joxuma dara bu ma demee foofu mu ne ñëwal jël mu woo ma ko yónnee 4000 bi mu léegi da ngay ñëw jël sa téere bi ak xaalis bi xaalis bi nga war a jot ma ne ko ne d'accord demaat beneen beneen yoon ci réveil bi si réveil bi ñu fi tëjewaat foofu léegi bu ma fa demaatee ma toog ma ko ne léegi ñëw naa mu génnee di làmbatu kii mu ne léegi yow ñaata nga bëgg préparé wu si tabaski bi ma ne ko ne man damaa am ay njaboot te man damaa am ay rakk sama waajur yi dañoo jur macha allah parce que maa ngi am rakk fukki rakk ak ñaar ak sama njaboot yi comprendre nga ma ko man bi su ma amee deux cent mille parce que lu tax ma ko deux cent man xam naa ne waaye damaa ne ba si biir ma xam ne ne waa ji day fen waaye man dama bëggoon récupérer sama ma cent mille ak cent yu ma war a jox mu ne ko léegi deux cent nga may jox comprendre mu ma ne léegi parce que affaire yi xar bi nangam sangam cent mille la jar. ba proposé lu waat pour ngeen tëddaat. tëddaat na ko encore. tëddaat ngeen encore mu tëddaat ma mu tëddaat encore. boobu sa boobu dorogewul la deful la dara. boobu dorogewul ma deful ma dara waaye sa depuis boobu moom bu ma joxee garab bi daal xaw ma daf maa doroge xaw ma lan. maanaam lu mu koy def. daf ma koy def <laughs> bu ma ko joxee bi envoyé waat naa ko 4000. bu ma fa jógee bu ma tëddee ba pare ma ñibbisi mu toog ba mbër boobu noonu bu mbëree samedi dimanche lundi mardi mercredi mu woowaat ma comprendre nga. mu ma ne léegi danga may envoyé génn naa xaluwa danga may envoyé 4000 am na benn Euh, kii bi saraxaan bi euh, bu kii euh, kii sarax bu ma wax sarax bi fere bi yëpp 4000 la léegi nag may yónnee 4000 man ko ne sëñ bi man instant bi yoruma dara mu ma ne xëy soxna da nga dëgër baat yow bu ñu waxee nii ma mu ne ah léegi xaaral. d'accord bëgg a a xam ne mooy deuxième fois bi ngeen di seexaat rapport yéen ñaar. Mhm. maanaam lan la la wax. waxuma dara dafa ñëw rek mu ma ne léegi da ngay simi dama lay moccal sa naq bi. loolu la ma wax génn naa lépp léegi danga may da ngay simmi moccal la sa naq bi ma jox la téere bi ak sa xaalis bi nga dem préparer sa tabaski nga dem julli ci say njaboot ma ko ne d'accord nii la su ma ko woowee bu ma demee nag bi ànd bu ma toogee quatre jours cinq jours ma ànd ak sama xel ma ñëw ma xam ne fu ma ma dem ci d'abord am na ci ku ma woo kooku mu ne kii du neen am na lum la def lum la jox nga naan moo tax sa yaram bi nga ciy sant te def def la ma ne ko ne ah léegi nag parce nekk naa sama sago ànd naag sama xel lii duma ko bàyyee noonu ma woo benn police communiquer ak moom kooku mu mën a tey boo ko porté plainte doo xam foo koy yóbbul plainte bi benn ñaar xamoo fu mu dëkk moom daa ñëw foofu noonu rek di def foofu affaire yi saay ko fa fekkee man nga woo ma téléphone ma ma dem foofu ñu ma ne kooku dem na jógee na foofu bu yàgg ñoom sax xamatuñu kan la ñu fay luyee loolu lañ ma wax ma ñëw wax ko ko kii kii euh, homme de tenue boobu mu ne ko ne d'accord léegi mu ma ne léegi dangay fexe dem tës boo demee tës nga dénoncé affaire bi waaw policier bi moom ma wax loolu mu ne da ngay fexe dem tës dénoncer affaire bi bu fekkente ne waa ji waa Touba la wala mbër bu mu wax ne da koy ñaanal bu fekkente ne mbër bi xam na ko lépp dina leer loolu moo ma fi indi bëgg nag ku ma dimbale parce que maa ngi nii bu ma doon dem julli ji aw ma woon xaalis damaa leb soixante mille dem julli ji fu ma dëkk dafa sori sama néeg bi mu ngi nii lu ma waroon a fay si beneen weer bi balaa ñuy julli ji fayuma ko weer bi tamit mu ngi nii dee na fayuma ko fan yëpp mënumaa dem liggéey ndax samay ndax ñàkk wér gu yaram dafa ma nekk vaccination dafa protégé wu. deuxième bi woo premier bi woo kii daal deful benn protégé. deful dara kon yow fi mu nekk nii xamoo ba xam gis na say règle. depuis boobu gisaguma sama règle. depuis boobu gisaguma sama règle tamit dama doon toog ay deux mois duma gis règle parce que fu ma dem ñu ma ne sarab bi moo tax ngay dem muy def affaire année affaire yooyu noonu. waaye nag normalement man ci mois bii la cinq waroon naa gis sama règle. dépassé na te gisoo ko. dépassé na parce que tey la onze. ok jéemoo def test pour xam ba xam da nga ëmb doomam ou oh, def ma test parce que ku am xaalis mooy dem hôpital bi bëgg a euh, xam lu nekk ci loolu. instant bi lan nga yëg sa yaram. instant bi kay métti bu métti sax. fu may wax ni sama bopp bi mu ngi métti sama tànk yi bu ma toogee ba mu yàgg. su may dox tant que forcé ma du mu mën a dox. sama yaram bi maa def dara dara dara dara. maa téye dara maa lekk ci dara. te mooy cinq jours yoo xamante ne dafa ma lekk lekkuma sama gémmiñ gi ndox rek lay naan affaire bi jaaxal na ma torop bëgg rek ku ma jàppale di woo nit ñi jàppale ma daal ndax lii doy na waar métti na torop soo ko ooyee ko jot su ma naa ko woo parce que ma ko woowoo du ma ko su ma ko woowoon du ma doon jël bu affaire bu ma demee ci journaliste bu siiw boobu kooku wax ak moom jour ma fa jógee mu woo mu daal di ma woo téléphone mu ne ma naa ne man dama lay yedd ndax yow xale bu ndaw nga àdduna jaral la yenn même bu ma la tooñee sa bàyyi ma yàlla ma ne ko ne yow man nga tooñ ma ma bàyyi la ak yàlla day yomb torop bu fekkente mu ma defee li bon lii ma la doon woo nga may jël dina dina neex waaye su ma la woowee mooy doo ma jël bu ma la waxee damay dem test si gaba doog a ma wax nga ne nag ma yedd man munoo ma parce bi a ah, a jàpp day lox sa xel bi di nekk ci moom la wallaahi yàggul dara woo naa ko waaye bi day sonn am na sama beneen numéro bu moo ko woo numéro boobu sax moom moo gën tax ma jël numéro bu jënd numéro bu parce que benn pièce rek laa yoroon ma woo ko numéro boobu ma ne ko ne yow dinaa la indil convocation foo nekk mu jël sama numéro boobu dugal ko liste léegi numéro keneen bu mu xam su ko woowee du ma jël tey moom bu jékki ah, dinaa ko dem wuy ji de parce lu mu def moom moo ko xam wax dëgg fa yàlla moom moo xam lu mu def waaw da mel ne instant yàlla di woo kilifa yi ku ma dégg daal na ma dimbale di ci woo Ahmed Aidara parce que moom xam naa bu dégloo lii ku dégloo dina xam ne ku may ban mbër bu siw bu dëkk géej waaye ku may wax lépp dina leer parce que moom mu ne moom mooy ñaanal mbër boobu te mbër boobu rakkam moo doon bëre jour samedi comprendre nga waa ji yor naa foto mi yor naa vidéo yam yor naa numéro am yor naa ay audio yam téléphone bi sa yor ma koon téléphone bu ma yor man xaw daal téléphone bi daa jëkk saay rek écran bi parce que ma la envoyé démb ak photo yi kii journaliste boobu laa ko envoyé ndax buñ bu ma koo perte moom moo tax ma ma gardel audio yi affaire bi daal noonu la demee maa ngi woote ndimbal ñu di woo kilifa diine yi képp koo xamante ne man na maa jàppale te yàlla tax mu jàpp ma la ma parce que sonn naa trop instant sama wérgu yaram laa bëgg sama jaboot yi dañoo ndaw te sama yaay ginnaaw yàlla suñu borom man la yaakaar sonn naa daal di wocc ndimbal sama yaay dëkkuñu moom mu ngi dëkk ba fa nekk macha allah am na ay njaboot te ñoo ñëpp ginnaaw yàlla suñu borom sama loxo lañ nekk buñ naanee man la buñ soloo man la te ñu ngi jàngi école instant bi lu ma dimbale sax école dafa tëj te sama doom yi dañ doon jàngi école tollu jàng dara loolu lépp fay bi man maa ko yor vraiment métti na métti na trop parce que lii ñaata at maa ngi dëkk fii Dakar lii musuma arrivé kon lu la ta dal bu la dalee jaaxle rek moo la ciy fekk di woote ndimbal daal waaw di woote ñëpp daal ku mu mën a jàppale ci problème bii ñu taxaw rek te yàlla tax ñu la joxoon benn kii moom daal kii bu ma jox ma naan moom rek laa naan téere bu ma digoon sa joxuma ko nomba bu ma waxoon ndax may xaw ma nomba boobu tul la tudd xaw ma tul xaw ma ma boobu joxuma ko xasuma koo jox. doy na waar de. waa mais. waa mais lan moo ma jaaxal. doy hmm. lan moo tax. alaaji. Hmm. même cas. cas bi ñaata yoon la jàll. Mariane ma sa yoon nekk ci ci début ba. jaal a na fi bataay de dama doon bañ rek nga song a géej waaye mais dama ne. <laughs> jaal na fi bataay de. non dama ne mais ñaata yoon a ngi nii kaabu mel nii di am man loolu moo ma jaaxal. di la demee woon femme bi accouché ah, la demee di. amul problème ak jëkkëram dem di ñaan lu ji waa ji ko ci boppam ëmbal ko. amul fu mu jëm ak doom ñëw accouché ko fii mais ñaata kaa ci am et gis nga début problème bi. li laaj naan weñ gaa nga bañee ca mbànjaxaan foofu la. xale yi dañuy nekk ci tiktok bi alaaji di partager seen numéro ak ñu ñu xamul. di mantulaay bu defee benn vidéo. waaye mantulaay loolu loolu est-ce que raison la yow. pour nit dama kaay ma ñaanal la rek. nga déparé sa kër wutali géejawaay wala nga déparé sa dem ba ci région yi. mais weñ ngaa ko doolee foofu alaaji ay xale yu jigéen koo ko jox ma sa numéro nga jox ah. ko sama bi la ko gisee muy def ay vidéo na ko yow da am rab jox ma sa numéro. et bi ci def mu jox nit ñi fu ñu bañ ñu bañ a tooñ. xam nga tooñ gi mooy moom ndaw si fi nekk nii si poram bi mu yaakaar. mooy parce que waa ji wan na ko benn photo ak benn mbër bu siiw. waaw tey kaw yoonam new na bàyyi mbër bu siiw bi na bàyyi jàmbur moom na assumer ay responsabilité am moo jox waa ji numéro am moo fekki waa ji waa ji baane ko baanewaat ko mu demaat mu ni joxu ko lu mu màndee mais bu ko nee nañ baane mu baane moom kon neex na lu neex baane bi ah bon mais mun na foofu côté boobu mun na am sax da ko retourné waaye ban mun na am da ko jox loo xam ne ko fenn amul si bi ma wooyee amul xamal la gëm mais yow xam nga waa ji mu ne ma xamuma ko ma ne ko mais yow xamoo góor xamaanoo góor di ko fekk di la fekk jox la rendez-vous rek nga dem nga naan daf lay ñaanal ba ne auberge nga bu la benn yoon sax bu bu la tëddee benn yoon doo dellu mais mu tëddee la nga waat ko yeneen ca ngat nga mu delluwaat lekk sa cent mille yi nga denc dañ ko néew voilà bu lekkee lam la jox na dafa tax mënoo bàyyi sëñ bi nag foog nga dellu lu mu Eh, ku ci lan la ko jox ku ci topp sa naf. mais da ko jox dara mu naan. ku ci topp sa naf su ni dama ko tayul. jour ba mu fanaane lu mu mu naan. waaw lan la fa doon defoo defa fanaan. moo ma jaaxal lu tax mu fay dem. da doon ñaanu ne dafa am la nañ bàyyi lu nañ euh, bi nag ak Bougane Gueye Dany ci